ñoo fi ci dëkk bi nga xam mo modi di Touba Yamal nekké ci région bu Djourbel so waccé autoroute à péage bi rek ngir dem Diourbel daanaka do daw lu mat fukki kilomètre nga aksi ci biir dëkk bi dëkk bi nak Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma mom moko sancion momon ko waye ginaaw bi mu mujjé ci loxoy domam ji di Serigne Cheikh Abdoulahar Mbacké ñu gën ko min ci Cheikh Abdou Bali muy dëkk bo xam taxaw nako nak def ci lepp lo xamanteni mënu ko ñak ba liggéey fi jumaa ju mucc ayib jumaa ji nag ñuy waajal inauguration bi ñu jàpp ko vendredi dëppoog le 2 février 2024 Serigne Ahmadul Maxtaar Mbàkke mi nga xam ni mooy xalifa mbooleem waa dara Xuddoos yëkkati woon ay tànkam bàyyi ko ci Touba Mbàkke ñëw fii ci Touba Yamal ngir nemmeeku si jumaa ju mucc ayib ji nga xam ni moom la fi Serigne Cheikh Abdou Bali Mbàkke liggéey Serigne bi bi mu agsee waa dëkk bi dalal nañ ko waaye mu njëkkee visite bi ci biir jumaa ji sëriñ Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma daal di koy leeral mboolem loo xam ne moom moo jëm ci liggéeyub jumaa ji sëriñ bi nag am ci mbégte mu kawe lool. nee na mi ngi leen di xamal li bëgg na lool ci yoon yàgg na bëgg a ñëw lool waaye jot gi moo ko mayewul. nee fan yi nga xam ne yëg na ne ñu ngi waaj ubbi jumaa ji ci la daal di fas yéene daal ñëw amal fii visite bii mu fi amal si jàppoon na sax na ubbi nañ ko waaye nag bi mu ñëwee ñu xamal ko ne ko ubbeeguñ ko gët yi rek ne ajuma ji lañ ko ubbi nee na sëñ Abdou Lahad mii nag doom la ci moom jarbaat la ci moom comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp rek nee na bég na lool ci moom caw doxalinam ak yaram ak tegginam ak ak muriteem nee na moom ñi ko xam ñëpp yaakaar na ne yéen a yam ci loolu nee na li mu def nii nag ñëpp bëgg nañ ci ku fi ñëw ku fi ñëwut ku ko dégg ku ko déggul ñëpp bëgg nañ ci nee lii rekk moo am nee na lii rek lañ fi bàyyee. Mm-hmm. nee na ku fi nekk ku ci nekk ku ci nekkut lii rek la war a def lii su ñëpp du def nii. nee na mooy li am solo moom lañ leen fi bàyyee moom rek ci lañ war a ne muy doon muy diin ak lislaam ak ku taalibe. <coughs> nee na mi ngi ci góorgóorlu lu man moom su ñëpp du mii. li ñuy def mooy di ko ñaanal rek. yàlla gën koo jàppale. àggale yéenam yëpp ak yéene taalibe yëpp nga am ci ngërëmal Serigne Touba taalibe yëpp it am ko ci jërëjëf sant bu baax a baax. sëñ Ahmadul Maxtaar di sëñ Mourou Moustapha ci kaw suuf dina ñaanal suñu borom mu yàggal la fi lool te wéral la fii nga ñëw tey jii lii fi liggéey ci sab liggéey la bokk muy jumaa ji kon nag euh, sëñ sëñ mi lay sant sant goo ne. am na tàmbali waaye amul fu yem te dëkk bii de mos naa fee ñëw yoon woo xam ne kër gi booba ay xotti bëri ko wër waaye defe naa bokk na ci jomi Cheikhul Khadim ak Cheikh Moustapha ci ak dëgëraayam ak samp fu ne ci àdduna bi foo dem fu ne rek fenk fekk fa sañcu Cheikh Moustapha wala sañcu Cheikh Cheikh Mbacke defe naa sañc yi ci la bokk suñ Cheikh Abdou mii nag wax naa ko nee naa ko nit moom ci lii rek lañ koy nawe liñ lay nawe mooy fekk loo xam ne say waajur dañ caa nekkoon mu yoon yoonu metti yoon wu diis nga ñëw tege ca baag si fii nga si tey. defe naa bi nga duggee léegi rek wax nga ni ko ah kër gi de kër kër gi de murite na te ñëwoon naa fi yoon boo xam ne boo fi ñëwee booba kër gi doyoon na waar lool waaye tey ji mu jàmbaare def ci liggéey bu toll nii kon nag yelloon ak cant moom nag yàlla dañoo boole sëñ bi ci bu yàgg bi ma nekkee ndaw di jànge Touba ca kër ndëkkoon ci kër soxna moomi muy jàng ci école Daaru Xudoos may jàng ci arab bi saa yu musaana xëy damay taxaw ca buntu kër ba xaar ko su ma ko xaaree bu génnee ñu ànd bu ma ñëwee dugg mu jàng bu wàññee koo jaaraat jël ma ñu ànd ñibbi waaye boobu léegi na li ma xam ci moom mooy lii maanaam mooy mooy mooy ngor ak jom ak fit ak ndangoo liggéey. Serigne Abdou mi ngi lay nuyu mi ngi lay siyaara mu ngi lay ndokkeel di la masawu it ci coono yi nga xam ne ñëw nga ko ci dëkk bi jumaa ji nga xam ne moom la fi def ak daara ji nga xam ne moo nekk ci kër gi ñu di fi jàngale alxuraan loolu mooy liggéeyub mag ñi loolu mooy liggéeyub sëñ Tuubaa loolu mooy liggéeyub sëñ Mor Mustafaa loolu it moo tax mu leen ci doon wuutu ñëw fii doon fi liggéeyal lislaam waaye liggéeyal fi sëriñ Tuubaa ci ñaar yooyu ma tudd nga xam ne mooy ñaaru liggéey bi ëpp solo ci liggéey sëriñ Tuubaa muy jàngale ak jàkk ji nga xam ne ci lañuy ñuy jaamoo yàlla jóge ci daara ji dem ci jàkk ji loolu liggéey bu rëy rëy la kon mi ngi lay sant ci teewaay bi mi ngi lay ñaanal it bu baax a baax a baax ndax liggéey lii nga ko def nii rëy na ci moom lool lool lool lool lool rëy na it ci waa dëkk bi rawatina moom mii ndax sagal nga ko siggil nga ko it wan nga ko ne ko it ci liggéey bi nga nekk ñun ñoo ko bokk